Seneinfo International Seneinfo International Seneinfo.net dal leen nag jàmm ci lu gën a fës ci xibaar yi euh, lundi 4 décembre 2023 foo Quotidien lañ koy doole euh, moom at nee na attente euh, pour des opérations cardio-pédiatriques plus de mille enfants en danger donc journal bi mu ngi xam ne am na plus de mille enfants yoo xamante ne ñu ngi nekk en danger parce que du ñuy xaar ñu def la defalee leen ay intervention te boobu ba tey intervention yi commencé agul donc journal bi dans sa mu ngi xam ne xale yooyu noonu toll na si mille ñu ngi nekk en danger donc mu ne présidentielle 2024 Karim si loin euh, si près bi aussi loolu la xëy euh, fësal euh, à sa une ki rek mooy Sidi Lamine Niass tey la am cinq ans si si kaw si suuf donc journal bi aussi ñëwaat ci nee na 4 décembre 2018 4 décembre 2023 sii di 5 ans déjà donc loolu la journal bi xëy xam xamal Sud Quotidien moom mu ngi ñëw si euh, dysfonctionnement du processus électoral loolu la wax nee naa le diagnostic du euh, professeur Babacar euh, Gueye donc ki nga xam moom mooy professeur Babacar Gueye nee naa il y a un manque de confiance et de dialogue entre les acteurs politiques loolu la professeur Babacar Gueye xam xamle si journal bi Sud Quotidien l'observateur moom mu ngi def interview bu yaatu a yaatu ak ki nga xam moom mooy Youssou Ndour euh, déjà Youssou Ndour moom na nee naan il Ndour moom du participer à l'élection présidentielle moom renoncé na à sa candidature donc euh, journal bi mu mu suy ñëw nee na présidentielle 2024 euh, ak aussi li nga xamante ne aussi mooy différent li nga xamante ne moom moo nekk occupé sa famille yi mooy ki nga xamante ne mooy Abidoul ak Viviane ak immigration clandestine donc Youssou Ndour daal vraiment à cœur ouvert ci journal wax na lépp li nga xamante ne moom daal moom mu nekk projet am wax na daal defal na daal interview bu yaatu a yaatu euh, fi nga xam ne mooy journal l'observateur ñu des rek ci journal bi moom nee na audience ou proximité avec des insulteurs Macky parraine les contre-valeurs donc ki nga xamante ne mooy Macky Macky Sall euh, dafa rencontré euh, soxna si nga moom mooy Alouche Kitty donc kooku nga xamante ne moom la doon ci Ousmane Sonko la bokkoon ci Kawa Patriote la bokkoon nekk koo xamante ne vraiment. da na euh, wax lu nekk si régime Macky Sall dem na ba finalement moom bàyyi na euh, Pastef ex Pastef léegi mu ngi si camp Macky Sall loolu la journal bi xëy xamle euh, mu ne Macky Sall parraine les contre valeurs quotidien quotidien boobu moom dafa ñëw ci euh, Khalifa Sall euh, sur les procédures judiciaires contre le leader du PASTEF donc Khalifa saal daanaka mu ngi jox ay conseils ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko nee na cas pratique pour Sonko noonu nee na j'ai vécu vingt-huit mois euh, de parcours judiciaire loolu la xaalifa Sall wax ci journal quotidien les échos moom moom mu ngi ñëw euh, si tournée bi nga xamante ne Khalifa Sall rek ba wotee def na ko si euh, Fouta donc mu ngi woon doon nekk euh, demoon fi nga xamante ne moom mooy Matam mais son cortège bloqué Khalifa Sall continue à pied donc bu ñu arrêté cortège am bi xalifa Sall dafa xuus de continuer pour vraiment mun a dem à destination ñu ne ils ont arrêté le cortège c'est leur droit nous avons décidé de poursuivre à pied les militants rejoignent la marche et dénoncent noonu la fa demee Khalifa Sall dañoo arrêté cortège am mais tereewul moom ak ay militants am euh, continué nañ continué dem dox ah vraiment pour euh, continuer seen li nga xam ne moom mooy seen euh, caravane loolu la journal bi tey ñëw xam ne si asaayu. source a moom dafa ñëwaat rek si euh, Macky Sall Macky Sall nee na après Kaliphone Awa Seck euh, di di Awoush Kitty s'affiche aux côtés de Macky Sall donc nee na drôle de façon de réguler les réseaux sociaux Macky bi nga xam ne moom da doon woote ne dañu war a réguler les sociaux yi parce que si xeb dafa bari euh, si lay gars moom la def arme pour di saaga ak lu wax la kenn xamul donc Macky Sall tey jii moom ñëw na ànd ak ki nga xamante ne nekk allié ki nga xamante ne moom mooy Awoush Kitty ah, donc journal bi ñëw di ko fësal sa. donc chers internautes de Seneinfo International seneinfo.net lii la leen indiloon si lu gën a fës euh, si xibaar yi du leen jaajëfal bu baax a baax euh, si teewlu bi te di leen ñaanal yendal jàmm Seneinfo International